الخفي فاجتنب الإثم الجلي والخفي فكان ذا النظم على بحر الرجز ملتمسا فيه سدادا من عوز لعل فيه للنبيه تبصره والله نسأل الهدى والمغفرة والعون والتوفيق والإخلاص والتوبة النصوح والخلاص سبحانه يعلم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 incha allah ñu ngi nii di sumbu ay xeetu jataay yoo xam ne jataay la yuñ jagleel weeru mag wii di weeru koor comme niñ ko daan baaxee defee ci koor gu nekk 2STV ak ay kilifaam ay njiitam taxaw temm ci yokk xeet wi ay xéewal ak ay njariñ ci njàngaleem diine moo xam ne dañ ko daan def ci ay ajjuma ak alxames ñu fas yéene koor gi moom ñu yaatal ko baax a baax baax su ko defee kàddu diine ji dana am ak yéen ñeenti jataay ba juróom ci semaine bi ndax émission ajjuma ji fa mu nekkoon lay nekk incha allah waaye altine talaata àllarba ba alxames bu mu ci mën a doon bu di jotee rek incha allah ba ba une heure di jot man mii bu soobee yàlla danaa fi teew indil leen benn dars benn bind boo xam ne dama koy nafarandoo ak yéen di si seentu njëriñ pour ñëpp kon bu soobee yàlla bis bu nekk li ko tàmbalee altine ba alxames fu mi di jotee rek ku ko jotam may mën naa jàpp 2STV ngir ñu nafar yenn xikma walla yenn xikam ci yenn xik benn xikma ci xikam yi nga xam ne moom lañ daan nafar xanaa rek di wax ne ñi ngi ndokkeel ñëpp ci weeru koor yi ñi ngi ndokkeel ñëpp ci weeru koor yi di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu may ñu ñu mën a xéewloo xéewal gi xéewal gu toll ni xéewalu woor weeru koor yàlla ko yàlla jàppandal ñëpp yàlla ko yàlla jàppandal ñëpp yàlla na koor gi fekk ñëpp ci wér buñ ko mën a wooree suñ ko wooree yàlla na ko nangu yàlla bu ren nekk suñu mujj koor yàlla bu ren nekk suñu mujj koor lépp loo xam ne moom la borom bi tëral ci ay xikam yoo xam ne daf koo jublu ci koor gi mu war koo jëriñ doomu aadama ji yàlla buñ ci benn ump ay xeetu xéwal yu baree baree bari ñoo am ci koor gi xëy na loolu sax mënoon na nekk waxtaanu boppam yoo xam ne ki woor weer wi ci pas-pas bu bu sell woore ko niñ ko ko sante incha allahu dana ko ko jariñ fii ci dundu addunaam lu jiitu muy dem alaxira kon yàlla nañu yàlla defal loolu ci weeru koor wi yàlla na ko yàlla yombalal ñëpp yàlla na yàlla yombalal jullit ñëpp ñu mën koo woor yàlla na yàlla yokk xéwal bañ man cee jàppalante ci biir koor gi ndax koor lu metti la ci njóobeen yi kon wax dëgg yàlla am ndogu am na ci solo lool yàlla na yàlla yombalal ndogu loolu njóobeen yi yépp ak yenn njaayeen yi sax nag kon loolu mooy waa yëgle gi incha allah mooy lu tàmbalee altine ba alxames kom tey foo fi di jote rek danañ jéem a teew fii incha allah niñ fi daan teewe fas yéene jël benn xikma ci xikam yi ñu daan waxtaan ak yéen walla boog benn tomb boo xam ne xëy na mën nañ ko burxal buruxal dugal ko ci diggante bi su fekkee tomb boobu jàpp nañ ne mën naa amal njëriñu jullit yi te du nekk sax ci xikam yi su ko defee tey ñu ngi ñëw di jàng alxikmatu rabia wa tisuun te mooy juróom ñeent fukkeelu xikma ak ñeent moo topp ci xikma bi ñu jàllale woon ci ajjuma jële jàll wala ajjuma ji jàll xikma bi moo li muy wax mooy maasiyatu aw awrasat zullan wan kisaaran xayrun min taatin awrasat izzan wa stikbaaran maasiyatun awrasat dullan wa inkisaaran xayrun min taatin awrasat izzan wa stikbaaran xikma bii dafa ñëw di di joxe firnde ci xikma bi ko jiitu xam nga ma bi ko jiitu nitu yàlla ku màgg kii di ibnu ataayil ay sakandari dafa waxoon ne yàlla mën na laa wërsëgale ubbil la buntu topp ko ba pare tëjal la buntu nangul la te nag mën na laa nattoo bakkaar boo xam ne bakkaar bi mën naa mujj nekk sabab ci àgg ci moom sabab ci am ngërëmam bañ ca tolloo lépp lu yaakaaroon ne suñu ko waxee dana tax mu leer def nañ ko yàlla na fekk na leeroon na ci ñu bari waaye xikma bi dafa ñëw di gën a euh, firi xalaat boobu walla di ko wutal firnde te mooy mu ne maasiyatun awrasat lan wan inkisaaran mooy goo xam ne daf laa mujj jural ak toroxlu ak tiit ak jaaxle ak dellu ci yàlla xayrun min taatin aw rasad izzan wa istikbaaran moo gën fuuf topp yàlla goo xam ne lam la mujj jural mooy gis sa bopp ak yëg sa bopp ak defe ne dara nga mooy yàlla goo xam ne lam la mujj jural mooy yëg ak toroxtaane kersa ak jaaxle ak dellu ci borom bi tabaaraka wa taala moo gën fuuf topp yàlla goo xam ne lam la mujj jural mooy yëg sa bopp ak gis sa bopp ak naw sa bopp ak defe ne dara nga loolu lu jara waxtaane la ndax mën naa bañ a neex a dégg trop waaye bu ñu teeyee rek incha allah danañ mën a danañ mën a nangu ci mën ngaa wax ne kayfa takunu taatu aamilan fi iqsaai saaxibihi an illahi wa takunu almaasiyatu aamilan fi isaali saaxibiha ila mardaati illahi wa limaada mu ne kum neex nga wax nga laaj laaj bi kum neex nga laaj laaj bi mooy yàlla wala topp yàlla nan la mën a sorile jaam bi boromam topp yàlla nan la mën a sorelee jaam boromam mooy yàlla moom ñëw di jegele jaam bi boromam ak am ngërëmam loolu ku dégg xikma bi bu la neexee nga laaj ko su ko defee ñu bokk déglu tont bi wa yaati aljawaabu ayuha al ixwa min xilaali hadihi alxikmati qaa'ilan li anna almaasiya allati saaxibaha altabaahi wal istikbaar waaw wala li ann almaasiya allati tawarasat saaxibaha zullan wa inkisaaran bayna yaday illah xayrun min attaacati allati tawarasat saaxibaha التباهي والاستكبار mu ne topp mooy yàlla su juralee boromam ak toroxtaane gàcce ak tuuti ak jaaxle ci kanamu boromam loolu mën naa gën topp yàlla koo xam ne dafa jural borom bi boromam ak rëy ak ak yëg boppam ak ak naw jëf wa rubbama istaazama hada alkalaam baad baad annaas ala raxmi mimma dakarnaahu lak fi chari alxikmati saabiqa wax ji nag mën naa rëy ci aw nit malgré bu ñu delloosee suñ xel ci xikma bi jàll danañ mën a dégg wax ci waaye ñu xool yow mi wax ji rëy ci yow ñu ngi lay bàyyiloo xel ne comparaison bi fii ca dëgg du comparer topp yàlla ak mooy yàlla comparaison bi fii wax dëgg yàlla du compare topp yàlla ak mooy yàlla lu dul ci forme waaye ci fond bi moom ñaari mooy yàlla lañ ñaari mooy yàlla lañ xam ne benn bi mujj na yóbbu boromam ci niveau bi yàlla bëgg ku fa toll te mooy yëg ak ubudiya ndax ki nga xam ne topp yàllaam gi da koo jural yëg boppam naw boppam rëy xeeb ay nawleem kooku topp yàlla topp yàlla googu tuddatul topp yàlla mooy yàlla la tudd léegi bépp topp yàlla boo xam ne dafa mujj jural bopp morom bopp borom ak rëy ak naw sa bopp ak ak xeeb sa say nawle topp yàlla googu mujjatul nekk topp yàlla léegi ak mooy yàlla la topp parce que yàlla ngi wax ci alquran ci suuratu maida innama yataqabbalu llahu min almuttaqin yàlla du nangul jëf lu dul jëfu ñi ragal yàlla ñi ragal yàlla nag mooy ñi xam seen bopp ñi xam seen bopp ba du ñu naw seen bopp ñi xam yàlla xam seen bopp ba ba fu ñu toll seenu tuuti la ñuy yëg waaye du ñu yëg seenu rëy yàlla wax ci suurtu Yuusuf ba tey di wane na am na kuy nuru ku baax fekk daa bon fi mu wax ne wa maa yuminu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun wa nee na ñu bëri ci ñi nuru ñu baax ñi bëri ci ñi nuru ñu baax ñi bari ci ñi ñi nuru ñu gëm ndax dañuy jëf jëfu da jëf ju nuroog jëfu ku gëm nee na gëmuñu tus parce que pas-pas ba lal jëf ja baaxut ndax dañuy bokkaale yàlla kon nag fii comparaison bi du comparaison diggante topp yàlla ak mooy yàlla waaye comparaison ñaari mooy yàlla la ñaari mooy yàlla yoo xam ne benn bi mu na jural boromam ak tuub te benn bi juralu borom bi ak tuub kon benn bi moo gën benn mooy yàlla bi moo gën bokki jullit yi niñ leen ko waxee wax ju leer la fal muqaaranatu fi hadihi alxikma innama hiya bayna maasiyatin wa maasiya bayna maasiyatin saaqat saaxibaha ila mixraabi alcubudiya lillah wa zajjat bihi fi نيران الندم ومعصية تمثلت في إعجاب bi وزهو بالنفس واستكبار على الآخرين kon ñaari mooy yàlla la yoo xam ne benn bi mu na yóbbu boroom cig toroxlu cig tiit cig tuub ci xeeb boppam beneen bi moom yóbbuwul borom bi lu dul cig rëy kon sikki nekkul ci amul kenn koy wax ñaar yi te du wax ne mooy yàlla gu njëkk gee gën kon loolu lu jar a bàyyi xel la euh, ndax borom bi tabaraka wa taala dafay nattoo yenn jaamam yi ay nattu natt yooyu nag léeg-léeg mooy natt mooy da cay bokk dafa am ay jaamu yàlla yu yàlla di nattoom ak mooy goo xam ne lam ca jublu dëgg-dëgg mooy ñu dellu ñu dellu ñu ñu ñu découvrir seen bopp xam ne amuñu solo ñu bañ a tëgg seen dënn defe ne ay jàmbaar lañ léeg-léeg kuy góorgóorlu lool ci def lu baax ak bàyyi lu bon yàlla natt ko mu am rëcc rëcc ci def lu bon fekk lañ ci jublu mooy mu bañ a naw boppam mu dellusi mu xam ne fi mu toll nii xéewal yàlla ak njàppalam ak ndimbalam ko fa yóbbu waaye du ngóoraam kon nag na def attention ba bañ a gis boppam waaye na def bañ attention ci bañ a xeeb ay nawleem euh, ndax xeebante bi léeg-léeg dafay fes ci suñu diggante yi te loolu yëpp li ko jur mooy defe ne ay jàmbaar lañ yàlla xéewale la xëy na benn xeetu jaamu yàlla goo man nga defe ne sa bakkan digal la ne jaamu yàlla googu nga man moom rek a am solo kon yow yaa man gaay waaye yeneen xeetu jaamu yàlla yi nga tële yooye moom mu tuutal ko ci si bët ba ñela fa man nga xeeb leen loolu ëpp naa def loolu ëpp naa def loolu day am ci dund gi ñuy dund sunna yonent bi sallallahu alayhi dañ ci manante dañu manante ci dund sunna am na ñu yàlla baaxe ñu mane sunna sàngam fonk ko lool man ko lool am ñeneen ñu yàlla baaxe ñu mane sunna sàngam léegi xikma bi bokk na ci li ñuy dégg li ñuy dégg ci xikma bi nga bañ a jàppee ne yow fi nga mane ci dund sunna moo ëpp solo fi ñeneen ñi mane loolu wóorut loolu wóorut ndax yow ko mënuloo dund sunna bi lépp mënuloo ko ndax mënuloo ko du da nga koo bañ waaye da nga koo mënut doomu aadama dafa néew doole dafa lot ci def liñ ko digal lépp rawatina yi jëm ci wàllu naafila yi wala yu jëm ci wàllu sunna yi te mooy yi nga xam ne soo ko defee am tiyaaba soo ko bàyyee doo am bakkaar loolu lu jar a bàyyi xel la farata yi moom amul négociation farata yi ñooy dénominateur commun mooy li li ñëpp man la yàlla sas ñëpp da koy def nekk jullit soo ko deful leneen ngay nekk ba mu des jullit na yi nag moom dañ ciy manante dangay man yii tële yële dangay man yii tële yële bokk na ci lii ñu xikma bi jëriñ mooy fi sunna yi ñu mane ñu bañ koo teg ci sunna yi tële ba defe ne yi ñu mane daf ñooy tekki ne ñoo man ñeneen ñi mane feneen loolu wóorul te loolu day yàq jëf kan mbokk jullit yi ñu bàyyi xel bu baax a baax wax ji yàlla wax ne wa xuliqa xel insaanu daifan doomu aadama dafa néew doole dafa néew doole ci lépp néew doole gu mat gu mat la gu matale ci lépp la néew doole néew na doole ci def lu baax néew na doole itam ci bàyyi lu bon kon nag na jéem ci def lépp lu man ci def lu baax na def lépp lu man ci bàyyi lu bon waaye fu mu toll na yëg ne fi mu waroon a egg egg gu fa te boo watul ñeneen yi ñoom egg nañ fa su ko defee loolu li mu lay jural mooy nga naw ñeneen ñi lu ëpp li ngay naw sa bopp loolu yàlla wax na ko suuratu nisaa yi aaya ñaar fukk ak ñeent wa xuliqa al insaanu daifan suñu bind la yàllaa ñu ko binde néew ji doole lot ci suñ bind la bokk waaye mu wax fale ci suurat ok euh, euh, gisuma fi bind aaya danaa ci dellu kon mu wax ci xadis yonent bi salaa salaam ne kullu bani aadama xata yàlla ne bépp nit bu mu mën doon dangay dangay da ngay manqué da da ngay juum kon xadis boobu dafa ñëw di firi ne xuliqal insaanu daifan ndax doomu aadama mënta mat attanul mat kon nag li fi sës mooy def lépp li nga man ba pare te xam ne mataloo xam ne mataloo loolu rekk la xikma bi bëgg a firndeel borom bi tabaaraka taala wax nañu ba tàyyi ne ñun mënuñ suñ bopp mënuñ suñ bopp bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu sumbi luñ munta naan mënuñ suñ bopp fi mu wax yaa ayyuha naas antumul fuqaraa fuqaraa ila llahi wallahu huwa alganiyul hamid yéen mënu leen seen bopp yàlla moo man boppam kon dellusi leen ci moom mbokk jullit yi mboolem xeetu mooy yàlla yi ju li mu war a jural nit ki mooy mu dellusi si ci boppam mu gaaw tuub gaaw tuub dem ci boroomam tabaraka wa taala tuub nag dafa am ay sart jàng nañ ko ci laxdari jàng nañ ko ci laxdari mooy nga rëccu li nga defoon waat ne dootoo ko defati ba pare bàyyi la nga doon def ci saasi nga bàyyi ko ci saasi safaan bi bi nga bi ñu lay aaye boo tuubee danga koy bàyyi ci saasi rëccu li nga ko defoon waat ne dootoo ko defati loolu mooy tub loolu soo ko defee te muy dëgg su la dalaatee itam boo ko defaatee mu dalaat la nga defaat ko mu dalaat nga defaat ko ba muy junni yoon itam du tee fu mu la dale soo amee pas-pas bi nga amoon borom bi tabaaraka wa taala jégal la ndax moom ku bëri yërmande la kon ñu bàyyante xel xikma bi am na solo lool ci képp ku sóobu yoonu mbaax nga bàyyi xel sa bopp bàyyi xel say nawle bokk na ci xikma bi lim ñu mën a jariñ mooy ñu rafet njort ci suñuy nawle <laughs> ñu rafet njort ci suñuy nawle ndax même bu feeñee ci suñ bët <laughs> ne def nañ ak mooy même bu feeñee ci suñ bët ne def nañ ak mooy feeñul ci suñ bët mooy googu lan la ko jural ci rëccu akuk tuub loolu mooy problème bi loolu mooy problème bi dëgg la mooy gi moom mën naa feeñ ci suñ bët ñu gis ne lii mooy la ndax mooy moom ne luñ mën a xam la ndax yàlla du ñu tere luñ munta xam ku gis mooy xam ko kon mooy ki yàlla nattoo sa nawle wóor na ne la lii mën nga mën na laa wóor na lii mooy la mais li la wóorut mooy mooy googu lum mu ko jural lan la ko jural ci rëccu lan la ko jural ci tuub nan la def ak boromam ndax boromam jéggal na ko wala jéggalu ko loolu mooy problème bi loolu mooy problème moo tax gis ko muy def mooy warul tax ñu ñaaw ci moom njort ba defee na ñun ñoo ko ëpp chance wóorut wóorut te nag ñu jéggal ma kenn ku nekk ci ñun xam na ci boppam ay sikk kenn ku nekk ci ñun xam na ci sa bopp ay sikk yàlla la soob bëggul ñu xamante bëggul ñu xamante ci suñu biir yi yàlla la soob ndax aare ñu ko aare ñu ko ko waaye kenn ku ne xam nga sa biir bopp xam nga sa bopp kon kenn ku nekk ci ñun xam nga li nga sikkile waaw loolu nga sikkile lu teewoon nga def sa effort yëpp ci régler ko ndax moom régler ko moom mooy moo lay amal njëriñ ndax yow ëllëg sibiri ci loolu lañ lay régler sa taraanga suba ak sa sa mbugalum suba mi ngi aju ci problème boobu lu teewoon nga def effort ci réglé ko ngay ñaaw njort ci sa mbokkum jullit moo xam ne xamuloo ndax moom bosam réglé na comme déet loolu wóorut loolu seytaane moo koy def loolu seytaane moo koy def waruñu ko kon mbokkum jullit mi nga dëkkal te yàlla nattoo ko ak mooy dëgg la xam nga ne mooy la waaye xamuloo ndax jégal nañ ko ko wala déet te itam dama koy wax toujours xale yi ki nga gën a xam ci nit ñi ki nga gën a jaxasool ci nit ñi soo wattuwul li ëpp ci waxtu vingt-quatre heures bi doo ko ci gis ki nga gën a jaxasool ci nit ñi soo wattuwul li ëpp ci waxtuy bis bi doo ko ci gis lu néew nga koy gis ci waxtuy bis bi waaw ni ko gisee waxtu yooyu nga koy gis ci bis bi nga gis ko ci càggante kan moo la wax ne li ëpp ci waxtu yi des ci bit bi bis bi te doo ko ci gis nekkul ci leneen lu koy jariñ ku la ko wax loolu wóorul kon mbokk jullit yi nañ gën a rafetaat njort ci suñu mbokk jullit yi waaye nañ ñaaw njort suñu bopp loolu moo jur keroog bi borom xam-xam bu mag boobu ñu xam ñun ñëpp di Muhammad al Ghazali yàlla na ko yàlla dolli yërmande ak xéewal ak njëggal te muy suñ sëriñ ñun ñëpp ndax wërsëgal gu ko yàlla wërsëgale woon xam bu doy waar ba pare wërsëgal ko xam-xam boobu mu mën koo sotti ci ay téere ci façon bu leer boo xam ne suñ classe gi yëpp mën nañ caa jariñu Muhammad Xasaali moomu nga xam ne téere bu ne bind na ko keroog ba waay sa ñëwee ci moom yàlla nattoo ko muy naan sàngara mu ñëw ci moom jooy jooy yu metti di ko wax ne na ko ñaanal mu tàggoog sàngara si keroog Muhammad Xasaali moomu daa mujj jooy jooy yu ëpp ya waaj a doon jooy ba waaj a farfal jaaxle waa ji doon waa ji doon jàmbat nattoom far jaaxle ci jooyu Muhammad Ghazali bi nga xam ne moom la yaakaaroon ci mu jàppale ko ci mu mu mucc ci natt boobu lan moo jooyloo Muhammad Ghazali Muhammad Ghazali dafa wax ne dafa seetlu mu ne waaye si li koy jooyloo mooy sàngara sii muy naan nga xam ne day yóbbu xelam da koy dorogi waaye moom chance am mooy xam na ne sàngara si baaxut xam na ne sàngara si da koy doroge waaye man man Ghazali est-ce que amuma beneen dorog bu may doroge te yëguma ko tur wii ma yàlla jox ñu bari xam ma xam-xam bii ma yàlla jox ñépp naw ma ma bind ay téere su ma bindee téere balaa téere bee génn ñëpp di ko xaar su génnee di def ci marché bi semaine jeex bayre bii ma yàlla jox ñëpp di ma woo aéroport bu ne ma wàcc ci ñëpp di ma naw est-ce que du dorog est-ce que dorogewuñ ma est-ce que jurulu ma est-ce que est-ce que taxul ma defe ne dara laa est-ce que taxul ma defe ne egg naa fenn est-ce que taxul ma def ne maay sëriñ yu julli ñëpp daal di jooy jooy yu métte métte loolu am na solo loolu am na solo yëg-yëg boobu la ibnu ataay lay sakandari bëgg mu ñu koy yëg ci góorgóorlu gi ñuy góorgóorlu ci bëgg a baax góorgóorlu gi ñuy góorgóorlu ci topp yàlla ñu am ci yëg-yëg boobu te bañ cee am yëgu-yëgu defe ne réglé nañ dara wala àgg nañ fenn loolu day yàq jëf moom laa leen waxoon ci ma bi jàll ne leen loolu day tuur yalwaan day tuur yalwaan waaw góorgóorlu yalwaana yalwaan ba am lu suur nit nga sàggan ba nit tuur ko loolu ëpp naa def te loolu bokk nañ li ci jur mooy lu ñuy yalwaan rek ñaare seytaane tuur ko walla ndaw seytaane yi ñëw tuur ko kon mbokk jullit yi li am solo dëgg dëgg dëgg dëgg ñu war koo xam nga xam da nga koy sóoraale mooy ñu nangu li ñu doon xam li ñu doon nangu li ñu doon mooy xam ne ay jaam lañ jaam kese lañ tekkiwuñ tus ci kanamu yàlla te bu nuñ faa tekki tus nag waaw li fi da li fi nekk daal mooy fexe ba def li ñu digal jé fexe ba jéem a def li ñu digal jéem a bàyyi li ñu tere waaye munuñ caa àgg fenn foo xam ne nag dana tax ñu jàpp ne dara lañ wala tekki nañ dara loolu day yàq jëf wax jii nag kenn du ki déggee ne dañuy encourager nit ñi ci def lu bon wala dañuy tayalloo nit ñi ci def lu baax walla boog dañuy seetaan nit ñi ñuy def lu bon loolu du ko tekki de du tekki loolu ndax tere lu bon digle lu baax farata la far fardu kifaaya la faratay mbooloo mi la ñun ñëpp la ko yàlla sas ne na am ñu ko def xëy na ñëpp duñ ko mën a def mais na am ñu ko def su ko amee ñu ko def mu wàcc ñun ñëpp su ko kenn deful ñun ñëpp ñu am bakkaar kon waxu ibnu ataayilaay bii kenn du ci déggee bàyyi nit ñi ñuy def lu bon keneen kenn du leen wax tus déedéet nit ñi dañ ñoo sant ñi ko man ñi ca toll ñuy def al amru bil maarufi wan nahyi anil munkar yàlla moo ko wax surtu al imran aaya téeméer ak ñeent wal takun minkum umma yaduuna ila alxayri wa yamuruna bil maaruf wa yanhawna anil munkar wa ulaika humul muflixuun yàlla ne fokk am ci yéen groupe kuréel boo xam ne day taxaw temm ci digle lu baax taxaw temm ci tere lu bon ñooñu ñoom ñi man loolu te nangu ko def ñooñu rekk a texe kon digle lu baax tere lu bon farata la ci ñi ko man ñëpp nag mënuñ ko ndax digle lu baax ak tere lu bon itam dafa am ay aadaab dafa am ay norme ñépp mënuñ ko dafa am ay suruut dafa am ñu ko man am ñu ko mënut ki ko mënut nag su ko defee mën naa yàq ndax dafa am ay aadaab comme ni ma ko waxee am ay norme kon ñi ko man lañ ko sant waaye nag ñi ko man moom foog ñu def ko kon kenn du wax ne kii def lu bon nañ ko bàyyi mu def lu ban déedéet kiy def lu bon nañ ñëw ne ko li ngay def bon na te bàyyi ko kiy def lu bon nañ dem ci moom ne ko li ngay def nii lu bon la te na nga ko bàyyi léegi nag ci ñetti niveau ci ñetti dayoo lañ koy defe am na koo xam ne day ñëw ne ko li ngay def bon na te bàyyi ko su nanguwul bàyyi su ko nanguwul bàyyi mu jëflante kook moom ndax moom man na ko am na kàttanu jëflante moom te am na ci àq mën na ko am koo xam ne day ñëw rek ne ko li ngay def bon na bàyyi ko waaye foofu lay yem su nangul bàyyi du ci jëflanteeg moom ndax bu ci jëflanteeg moom du ca génn ko kon foofu lay yem am koo xam ne ñemewu la sax ñëw ci moom ne ko bàyyi ko waaye nag na ko naqari na gis ne kii li muy def neexuma da ma torop te suma sañoon mu bàyyi ko kon li ci am solo mooy il faut ñu aaye ñiy def lu bon ñu li ibnu ataay lay bañ ku ko def mooy kii def lu bon nga aaye ko ko ba pare moo xam bàyyi na ko moo xam bàyyiwu ko nga def ne moom dafa torox dafa alku et que yow yaa ko gën et que tekkiwul tus loolu la ñuy bañ loolu lay bañ nga àgg ca parce que foofu maîtriser woo ko gannaaw gannaaw def lu bon gi la def lu bon liy jur loolu maîtriser wu ko wala di ko xam ne safara nga jëm waaw loolu wóorut mën naa nit mën naa jëf jëfu nit mën naa jëf jëfu jëfu ku war a ku kuy dem safara te du dem safara ndax diggante jëf ji ak dem safara lu ne xaj na fi lu ne xaj na fi ndax njëgalu yàlla xaj na fi njëgalu yàlla xaj na fi kon nag li am solo mooy nga yem fi sa compétence yam fi sa compétence yam mooy lii lu bon la bàyyi ko lii lu bon la bàyyi ko waaye yow mii def lii lii lay dal lii ngay def yoo nii nga mel doonitu tus tekki woo dara danga alku loolu moom kenn àggaloowu la ca ndax xamuloo xamuloo fa dara kon loolu lu jara bàyyi xel la mbokk jullit yi euh, kon defe naa gannaaw bi ñu leeralee wax boobu kenn duutu jaawale wax yi nga xam ne moom la Ibn Ataay lay wax ak ñaaxaate ci def lu bon wala boog loo ci def lu baax déedéet def lu baax moo baax pour toujours ñun ñëpp moom la ñu sant bàyyi lu bon moom la ñu tere pour toujours ñun ñëpp moom la sant waaye nag def lu baax dafa am lu mën a jur ci nit def lu bon am lu mën a jur ci nit loolu rek la nitu yàlla kii bëgg ñu bàyyi ci xel ba du ñu juum ba du ñu juum ci teg nit ñi fu ñu fu fu dul seen place ndax doomu aadama dafa complexe dafa naqaree xam borom bi ko bind rek moo ko xam moo tax yow li feeñ ci moom rek nga xam waaye li nëbb ci moom xamuloo ci dara kon ñu bàyyi xel loolu lool lool lool te loolu lu am am solo la ndax ñaaw njortu gi li mu yàq bari na ñaaw njortu gi li yàq bari na léegi nii rek bi may ñëw maa ngi dégg benn mbokk buy waxtaan ci diina ji muy wax ci mbirum weer wi di wax ne problème weer wi li koy regle mooy ñu wóolante waaw nañu wóolante rek su ko dee weer wi comme Sénégal ñi ko séq di ay jullit ñii dañoo nekk ci tarixa ñii nekkuñu ci tarixa wala boog ñii dañoo nekk ci ay daayira ñii nekk ci ay association léegi ñu wóolante rek ñu jàpp na loolu ay kuréel la rek yu yu nit di jaamoo yàlla waaye ñun ñëpp ñoo bokk luñ gëm ñun ñëpp ay julli lañ moom mu ne kon su ko ñi nekk ci tarixa yi waxee na ko nangu su ko ñi nekk ci ay association wala ñu amul tarixa loolu la wax loolu li mu bëgg a wax rek mooy nañ rafetante njort loolu la bëgg a wax rafet rafetante njort bi nag mooy problème bi dafa laaj ñu xàmmee xàmmee googu nag moo ñu ndax ñun ñaare nit ki li ñu gis ci moom rek lañuy ñuy ci moom te loolu wóorut kon nañ rafetlante jot ndax loolu moo ñuy jàppale ci liggéey bi ñuy liggéeyal borom bi tabaraka wa taala waaye kenn ku nekk jël sa bopp teg ko ci sa kaw yi nawle yow rek a xam yow rek a gëm yow rek a sel su ko defee te yow matéo lépp même boo boo selloon même boo dëggu woon même boo xamoon mënuloo loo féeti lislaam bi fépp benn boor rek nga ko mën a féete te beneen boor bi nga mënta féete jullit ñi soxla nañ ko leen fa féete kon li la ci doon génne mooy nga nangu ne say nawle yu mel ni yow yu baaxee ni yow yu sellee ni yow ñoom ñoo nekk foofa te fañ mane fañ féete mane nañ fa su ko defee doo découragé kenn ku leen di déglu doo découragé kenn kuy jànge ci ñoom loolu farata la loolu farata la waaye ku jàngewul ci man jànguloo dara ku jàngewul ci man xamuloo ku àndul ak man àndul ku sell loolu wérut wérut wóorut wérut wóorut loolu rek la Ibn Ataay laay bëgg ñu bàyyi ko xel bu baax a baax te lu jar a bàyyi xel la waaw te lu jar a bàyyi xel la ndax liggéey bi mënoon na fee gën a yomb ndax su fekkoon ne ñu ko ñu ko séq rafetante dañ njort seen diggante di jàppalante ñemente ñemente euh, sëñ Cheikh Ahmad Tidiane si yàlla ko yàlla dolli yërmande ak xéewal ak njëggal dégg naa mu wax ko wax ne sëñ Babacar si da ko daan wax ne yéen ñun ñoo leen ëpp chance ndax ñun suñu àndan suñu ànd gi ci ci ci ci bëggante ak soppante ak wóoluwante lañ ko lal te yéen seen ànd gi ci ëkkonte ngeen ko lal àndu ëkkonte nag yàlla ñu ci yàlla musal lu yàqu rek àndu ëkkonte moo ko yàq kon nañu gën a baa bàyyi xel suñ bopp gën rafetante njort loolu mooy dëgg ndax ñun suñ bopp lañu xam xamuñu ñeneen yi rafet njort bu baax a baax a baax te nawlante tey nangoo nemmakonte kenn ku ne bul nangu la ngay xam ci sa nawle ñu wax la ko xamal ko sa bopp dama koy nettali toujours xale yi ci bi ma jàngee Ibris Ibris mooy téere boobu nga xam ne wax waxu Maulana Abdul Aziz Dabbar moom lañ ca moom lañ ca bind Abdoulaye Moubarak mi nga xam ne moom moo bind téere bi ci dund gi mu doon dund ak nitu yàlla kooku daf caa wax wax yu yu yéeme ndax moom borom xam-xam bu mag la woon ci université yi gën a mag ci Fass ci la nekkoon di ci jàngale te góor gi góor gi jàngul Abdou Aziz Dabakh ummi ummi la jàngut yàlla def muy dégg ay mbiram mu mu jaaxal ko ku jàngut nan la war a mën a jiitee mbooloom jullit ba pare ñooñu di jëriñu ci moom mu jaaxal ko mu ñëwoon seet si ko ngir ngir diingat ko moom moo ko nettali moo ko def ci téere bi bi mu ñëwee ci góor gi di ko gëstu di di xool ndax xeetu xam-xam yi muy wax te jàng ko muy alquran ju muy firi wala hadisi yonent bu muy firi te jàng ko léegi loolu ba ban niveau la ci la ci am dëgg mu koy nattu di ko nattu di ko nattu ba àgg ci mbirum xadis moom moo ko nettali bi mu agsee ci mbirum xadis di pour xam xadis bu wér ak bu wérut nee na muy def léeg-léeg mu jël benn xadis ne góor gi ndax xadis bi wér na góor gi ne ko jàng ko bu ko jàngee ba not sottal léeg góor gi ne ko wér na léeg góor gi ne ko wérul waaye moom nee na bu dee xadis boo xam ne góor gi def ko ne wérut te moom mu jàngoon ne wér na day delluwaat ci ay kaggoom ci way ndareem day delluwaat ci bibliothèque am gëstuwaat bu baax hadis bi waaye nee na fa gët gëstu bay mooy hadis boobu góor gi ne woon wérut wérut su ko nee su ko góor gi ne hadis bii de moom wér na te moom mu xamoon ne hadis bi wérut day daal di jëlaat matuwaayam dem ci kàggoom di gëstu di gëstu di gëstu hadis bi fa muy mujj mooy mu xam ne hadis bii wér na moom moo xamuloo ne wér na mu ne bi ma demee ba xam ne góor gee ma gën a xam hadis bu wér ak bu wérut te man ma jàng te moom jàngut ma ne foog ma xam secret boobu mooy lan nee na mu ñëw ci góor gi ne ko léegi d'accord naa ne yaa ma gën a xam hadis mais léegi damaa bëgg nga xam nga wax ma comme yow jànguloo nooy xamee hadis bu wér ak bu wérut mu ne ko hadis bi soo ma laajee ndax wér naam wérut ma ne la jàng ko soo ko jàngee leeru yonent bi lay gis sa gémmiñ ma xam ne moo ko wax su dee hadis bi wérut boo ko jàngee du ma gis leer gi <laughs> ah ça c'est trop fort ah, ah, ah boobu nattukaay nattukaay bu doy waar la mu ne ko bu hadis wéree rek su ma nee la jàng ko soo ko jàngee leeru yonent bi lay gis ci sa gémmiñ su adif wérul nag soo ko jàngee du ma ko ci gis waa jooju noonu la defe góor gi ba mujj bokk ci taalibeem foo fi ma tax a jóg accès guma fa mu mujj bokk ci taalibeem loolu moo jur mu mujj bind waxam li mu daan wax ba ba def ko téere boobu waaye problème bi mu am mooy bi waa université yëgee ne léegi moom taalu bi Abdou Aziz Dabakh la dañu koo dal dañoo dal ci koom ne ko nag yaa ngi ñuy rusloo ndax yow intellectuel bu toll ni yow référence bu toll ni yow université bii yëpp nga ciy model ñëpp ndaw la koo waranteel yey ko nga am ñàkk fayda gu toll ni dem fekk ku jàngu nga di ko def sëriñ loolu moom lu ñu jaaxal la mu ne waa d'accord man man man naa xam ne war jaaxal na leen waaye bu ngeen ma tontoo sama laaj ba pare ñu ne ko looy laaj mu ne yéen kan ci moo masa dem ci sëriñ bi toog ak moom ci benn la bu ko jaaxal werante ci ak moom ba xam ne sëñ bi du tus xamul tus ñëpp na ah waaw man de musuma faa dem ah koo foo dem kenn ku ne ne musu faa teg tànk man xaw ma fu mu dëkk mu dama koy dégg rek dem ah foofu man doom fa dem mu ne waaw mun leen kenn ci yéen moo masa la dem ci sëñ bi waaye mu jël xalimaam la ko jaaxal ci sëñ bi ak masala mu bëgg xam giseenu sëñ bi mu bind ko bind bu leer yónnee ko sëñ bi sëñ bi tontu ko wala mu bañ koo tontu ku nekk ne man kay musuma ko bind kenn mu ku nekk ku koo bind kon kenn musu faa dem kenn musu koo bind kon kenn musu ta jokk moom coow li li muy bëri bëri li nga koy xeeb xeeb ci diineem li nga koy ñàkk ñàkkloo solo li nga koy yéefarloo yéefarloo kenn ci ñoom musu faa dem kenn ci ñoom musul wax ak moom ci mbind moom mu ne moom eh, Moubarak mu ne wax jooju moom moo intéressé mu ne man daal maa waaru man daal maa waaru ndax nit ñi dañuy doyloo njort fu ñu mën a am yaqiin dañuy doyloo njort fu ñu mën a amee lu wóor fi ñu mënula amee lu wóor fi ñu fi ñu amoon te ame lu wóor ñu ñu ñu wut ko fa dañuy am fu wóor dañuy dañuy am fu lu wóor foo xam ne njort njort am na fa njort fa nekk njort am na fi nga xam ne mën nañ fa ame lu wóor ñu doyloo fa njort c'est-à-dire mu ne ñun ñun ñëpp motoon yi ñu yor téere yi ñu yor nii di ko jàng basé wu ci bay joxe xam-xam gëm ko gëm ne moom rek kay dëgg pourtant téere bi téere yi yi ci ëpp bañ koy bind fekkuñ ko fekkuñ fu ñu ko bindee kañ wax ne moo ko bind wóoruñu à cent pour cent moo ko bind waaye gëm nañ ko c'est-à-dire wut nañ yaqin fuñ munta amee yaqin foo xam ne njort am na fa parce que téere bi nga wax ne imaam Bukhari moo ko bind loo gëm gëm gëm gëm ne imam Bukhari moo ko bind comme fekke woo ba ko imam Bukhari bind am na benn pourcentage njort bu ci nekk ne bind ko ak lu mu tuut tuuti ndax da nga koo fekkewul moo tax fekke woo ba mu koy bind xamuloo ko imam Bukhari misaal laay joxe rek ci lépp loolu dafa walaabal ci bouton yëpp kon li ñuy tuddee téere yi ñuy jànge loo ko wóolu wóolu lum lu wóor ne ki ñu wax ne moo ko wax moo ko wax am na benn benn pour su njort bu ci nekk boo xam ne mu neex la mu naqari mi ngi ci ndax fekke woo fa gone bind kon yaa ngi wut yaqiin foo ko munta ame foo xam ne njorta nga fa njort am na pourcentage njort waaw waaye sa mbokk jullit mii nga dëkkal ci sa pegg ngeen bokk réew mi wala ngeen bokk dëkk bi fa mu nekk lu mu sori sori sori boo duggee oto dem fa te paas ba la fa yóbbu am nga ko waaye lii ci ëpp sax day nekk foo xam ne boo doxee egg fa nga xam ne lépp lu ñu la wax ci moom ci safa ca safaan man ngaa am léegi lu la leer tey ci loolu nga doyloo njort bi am ci moom rek lànk bañ faa dem lànk bañ koo déglu lànk bañ a jëflante moom loolu mooy problème bi loolu mooy problème bi loolu bakkan moo koy def kon problème bi mooy ñun ñëpp wala yi ëpp ci ñun dañuy wut yaqin fu ñu ko munta amee fiñ mën a amee yaqin ñu doyloo fa njort te fiñ mën a ame yaqin tañ doyloo fa njort mooy suñ mbokkum jullit mi ñu dëkkal bokk moom dëkk bi wala ñu bokk moom gox bi wala réew mi ñii oto mën na laa faa yóbbu ñii mën ngaa dox ba egg fa ñii sax booy doxantu rek egg fa ñu wax ci ñoom lu dul lu la leerut lu loo xam ne jàpp nga ne safaat la nga mën a am lu leer nga lank bañ faa dem doyloo rek liñ lay nett ci moom ndax bugguloo mu leer loolu moom bakkat la loolu moom bakkat la yàlla na ci yàlla musal loolu daal mbokk yi mooy problème bi kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax nañu rafet njortu ci suñu mbokk jullit yi rawatina ñiñ bokkal métier mi te mooy ñi nga xam ne ñoo bokk ñoom daara ji bokk ñoom jàng bokk moom bokk ak ñoom pas-pas bokk ak ñoom sas wi ndax yàlla moo ñu sant lu ñu xam mu néew mu bari nañ ko jàngal ñi ko xamut yàlla moo ñu ko ñi àgg ci ñun daraja am darajay al amru bil maaruf wa yàlla mun munkar ñooñu tam nañ ko def waaye ñooñu tam nañ rafet ci ñoom jort loolu daal su amoon dana yomb ci ñëpp dana yomb ci ñun jàngale kat yi dana yomb ci ñi ñuy déglu ndax nag ñi ñuy déglu ñi ngi am ay jafe-jafe de yàlla xam na ko ñi ngi am ay jafe-jafe de yàlla xam na ko ndax ndax léeg-léeg ñu déggee ci ma sàmba loo xam ne ma demba da ko weddi waaw loolu jafe-jafe la surtout bu fekkee dafa naw ma sàmba naw ma demba day daal di am problème ndax du xam kana ci wax dëgg te loolu mënoon naa ñàkk ndax bu fekkoon ne ma sàmba ak ma demba nangu nañoo toog ñemente nañ nawlante nañ nangu nañoo waxtaane masala yi ñu yu ñu wuute ba kenn ku nekk ci ñoom ñu xam fa mu teg li muy wax mën naa jur ak dellu gannaaw ci ci ñenn ñi waaye mën naa jur itam benn benn modestie wala wala ñu modéré seeni wax ba ba xam ne lii ma wax kat dëgg la waaye am na geneen dëgg gu fi nekk gu bokk la gi ma wax te loolu kii déglu bu ko xamee rek day tànn waaw te loolu moo mën a nekk ñu bari ci ñun wuute yi am wuute ngir la am na wuute déggin ga man nga mën nañ bokk sax ci benn ngir bi ba pare wuute ci déggin loolu tam mën naa nekk loolu du loolu mën na nekk te dafay yàgg dafay yàgg d'ailleurs wuute déggin moo jur ngir yi waaye wuute ngir tam dafa am su ko defee bu kii déglu xamee ne Masamba mii kat li tax mu waxee nii parce que ci ngirum sangam la bokk waaye maxta ma ma demb mii li tax mu waxee nii dafa bokk ci beneen ngir moom day féex parce que day daal di seet rek ngir yooyu bu ko ci gën a convaincre mu mu jël ko am jàmm waaye problème bi ni muy posé woo. ci gannaaw ñaaw njort gi dox suñ diggante ak xeebante gi ak ak ñooronte bi li mu jur mooy day dégg na ma sàmba li muy wax mooy moom rek ay dëgg ma sàmba li muy wax dara du ci dëgg ma sàmba waxul dëgg te dafa ñeme yàlla te sax daa jàngut loolu daal mbokk yi ay jafe-jafe la jafe-jafe la ci dëkk bi de te ñépp a ngi koy jàmbat nag dama xamul nag nu nu ñu koy lijjantee waaye daal bu ñu déglu woon ku mel ni Ibn Ataa'ilaay mii danañ gën a def ndànk danañ gën a def ndànk suñ ko déggoon bu baax danañ gën a def ndànk danañ gën a def ndànk bu baax a baax a baax xam ne daal euh, def ndànk baax na de def ndànk baax na de xam ne daal lépp nekkul ci suñu loxo lépp nekkul ci suñu loxo de te li nekk ci suñu loxo kës néew gënul li nekk ci loxo yi ñeneen ñi kon nag loolu ku ko yëg rek dana la jural jàmm yow dana jural jàmm ñi nga xam ne ñoom la yàlla natt ñu lay déglu kon mbokk jullit yi ma waxaat ko ibnu ataay lay sakandari maam bi xigma bu am solo la te mooy mooy yàlla gu lay yóbbu ci xam sa bopp mooy yàlla gu lay yóbbu ci yëg sa bopp xam ni nga day te dangaa tuuti dangaa torox sa dara matut nga daw dem ci borom bi tabaraka wa taala mooy yàlla googu day li muy nekk nekk mooy yàlla moo gën fuuf jaamu yàlla goo xam ne soo ko defee ba pare def ne yaa gën ñëpp defe ne yaa gën a xam ñëpp defe na yaa gën a mat ñëpp defe ne ku ku ku ku sotti nga loolu moom musiba dong la lay jural ak képp ku lay déglu musiba dong la ko jël yàlla ci yàlla musal ñun ñëpp yàlla ci yàlla musal kon su ko defee incha allah ma boobu lañ indi woon tey eh, doon ko ubbee bu soobee yàlla jataayu nafar ak fàttalante yi nga xam ne sumb nañ ko ci weeru koor wi te di ko defee fii ci 2STV yi ñu ñaan borom bi tabaraka wa taala mu may ñu kattanu mën koo def ba weeru koor wi jeex ndax fekkee semaine bu ne dañ fi ñëw lu mat ñeenti yoon loolu il faut ñu ñaan borom bi mu jàppale ñu ci loolu su ko defee ñu ñaan borom bi tabaraka wa taala itam mu may yenn jullit yi as njot su leen may ñuy man di déglu léeg-léeg yenn bind yi moo xam bind yi ñuy defee fii la ci kaddu diini ji wala bind ñuy defee feneen la ci yeneen kaddu yi wala ci yeneen béréb yi ndax itam nag ñun dañoo ñàkk jot lool ba nga xam ne moom daal di profité ci weeru koor yi comme weeru koor moom sénégalais bu jotee nangu nañu jaamu yàlla nangu nañ jàpp ne weeru jaamu yàlla la nangu nañ ne am tiyaaba kon ñu bàyyi xel bu baax a baax yàlla may jot ay sénégalais yu bëri bañ mën di topp waxtaanu diine yi nga xam ne ñooy am ci tele yeeg rajo yi ndax itam nag liñ mën a xam ci diine ji lu bëri liñ war a xam ci diine ji bari na lool te amuñu jotu jàng ko kon ñuy foraatu léeg-léeg ay benn benn masala ci waxtaanu diine yi du wàññi dara du wàññi dara du wàññi dara yàlla ko yàlla yombalal ñëpp yàlla na yàlla nangul ko ñëpp ñëpp ñun ñu nekk ci rajo yeeg télé yi ak ñi nekk ci jàkk yi ak ñi nekk feneen fu nit di doomu soxna wala doomu daara toog di di di di joxe lam xam ñun ñoo ñëpp yàlla na yàlla nangul leen yàlla na yàlla may leen wér guñ ko defee eh, te mu mu yàgg lool su ko defee kon eh, ñu ngi yemale fii jataay bi di wax ne kon ñu ngi ndokkeelaat ñëpp ñëpp ñëpp ci koor gi ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel ci koor gi di ñaan ñëpp yàlla may leen ñu mën koo woor eh, suñ ko wooree yàlla ko yàlla nangu su ko defee euh, waxtaan yi def ci koor gi ñu gën koo bàyyi xel euh, wàññi folklore bi wàññi folklore bi wàññi folklore bi wax dëgg yàlla euh, waxtaani koor yi bari nañ waaye yi ci yi ciy jëriñ jullit yi itam bariwul de wax dëgg yàlla ndax itam ña koy daj ña koy woote ñaare duñ ci jublu man caa jànge waaye dañ caa bëgg lijjantee leneen loolu nag ah loolu moom wóorul de loolu wóorul de ndax jël prétexte weeru yàlla di ci lijjanti leneen loo xam ne danga koo woote ci turu conférence islamique ba pare te ki ngay conférence loolu sax bëgguloo mu wax lu am solo ndax doo ko may taabum ko defee waaye yeneen mbir ngay lijjanti loolu daal moom lu jar a moytu la kon nañ góor ko lu baax a baax a baax ba euh, defaraat waxtaan yi gën koo joxaat gëdd euh, gën a euh, fa pas-pas yi ak yéene ji ñu defaraat ko ba jublu ci jëriñ julli ñu lu ëpp lañ ci jublu wut xaalis loolu daal moo gën ndax xaalis moom nit mën na ko am ci weer yëpp te tiyaabo moom ni ko nit mën a amee ci weeru koor yi mënu ko amee ci beneen weeru koor rawatina jataayu diine yi kon nañ ko jox euh, gëdda nañ ko jël au sérieux te bàyyi di ko di ko jël comme prétexte pour wut xaalis ëpp naa def kon maa ngi leen di jox daje incha allahu euh, ajuma ji ñëw waaye émission yi moom bu soobee yàlla altine bu ko yàlla mayee wér gi ak bakkan danañ fi dajewaat ci midi ndax émission koor gi yi may def yëpp ci semaine bi midi lay tàmbalee ba une waaye émission ajjuma moom fa mu nekkoon du fa jóge ajjuma lay doon incha allah kon maa ngi leen jox daje ajjuma ji di ñëw di suba bu soobee yàlla danaa fi invité kilifa gu mag ñu waxtaan ci xew-xew bi xew ci jamono mooy xew-xew bi nga xam ne moo aju ci Palestine waaye eh, di jéggulul sama doom eh, Serigne Mor Diosi si mi nga xam ne moom moo daan ubbi eh, ajjumay koor gi chaque année te ma nangu loon ko ko ba ren itam ñu d'accordoon ci ba ba mu wax ku ñu bëree bëree bari waaye nañ ñu jëgg rek moom ñu may ko mu ñëw ci ajuma ji ci topp te ajuma ji nga xam ne moo dëgmal ñu waxtaane ci mbirum Palestine ndax moo gën a jàmp te jullit yëpp ko bokk kon maa ngi leen jox daje ajuma suba ak jàmm incha allah émission bi jotaay bi ngeen toogoon di ko topp yàlla bu mu neen lu ngeen fi dégg te muy yiw yàlla na yàlla xiir leen ci ngeen mën koo jëfee wala yàlla nañ yàlla xiir ci mën koo jëfee njuumte yi ñu ñaan borom bi mu jégal ñu kër gi ñu ñaan yàlla dolli fi xéewal xale yi nekk ci technique bi di liggéey liggéey bu rafet bi yàlla def leen mag te barkeel seen dund te defal leen réussir seen projet kon subaak jàmm asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu سبحانه يعلم كل ما خفي فاجتنب الإثم الجلي والخفي فكان ذا النظم على بحر الرجز ملتمسا فيه سدادا من عوز لعل فيه للنبي تبصرة والله نسأل الهدى والمغفرة والعون والتوفيق والإخلاص والتوبة النصوح والخلاص